ñu ngi lay nuyu dañoo ñëwoon tey ngir siyaare si la bi jiitu mooy ci koor gi ndax jàpp naa ne dama ne sax koor gi waaye lu jiitu koor gi laay wax diir bu yàgg a ngi boo xam ne bi set say teraanga jóge fii ñëw ci man nga xam ne man ma wax ne lépp lu muy xéwloo ci sa kër gi lañ ko togge ngir ñeewante gu am ci sama jëmm ji ak yéene ji rafet yu am ci man yéene ma ak wér ak yéene ma ma yàgg fi loolu ku ma xam ak ku ma jege xam nga ko man nga ko seere te loo loolu du lu yàgg-yàgg loo xam ne du tey waaye dafa gën a dolli ko nag gën a fis ba ñëpp am ci yoon ñëpp xam ko sama digg ak yow nag gannaaw bokk gi yàlla boole. mbokk ko ne day am pété yalla mo nu jubalé waye ngay jëm jo xam it waxtu len dafa am ñaar yu may séré ci yow moy bëgg señ tuba ak ñamanta jaami yalla yi ak yërëm len bëgg señ tuba gi motax ni nga def nga def ko ni ko dara ta di du Balim mbul kayel moomee mooy moom tey mii rek amul lenn lu ci soppi ko seere nag la ca dàq say bokk seere ko te bu ma gisut lu ma xam gisuma dëgg gu ma mën a wax damay noppi waaye nag sañ naa li ma xam ak li may dund ak yow ma mën koo seere bu ma ne dama laa soxla balaa kàddu gi daanu nga ñëw waaye maataamu ñëwal sama bopp toog fii wax li may wax àddina sépp dëkku wax naa ko bu yàggut nee naa Serigne Mountakha moom waxal boppam ma dégg moo xam cant gu mu am ci yow ngërëm lu mu am ci yow te bu ma ko waxutoon du ma ko ñeme lu ma la ko yéene yéen du ma ko ñeme wax waaye li ngay daj ci doomu aadama la ngay daj ci say bokk li ngay daj ci néew doole yi jëm yàlla rek a tax te yàlla rek am sag pay waaye nag ñun ñi nga xam ne ay bokk lañ te ay taalibe seere rek lañ ci def doonuñ ci dara waaye dañuy seere kon nag wax dëgg war nañoo mën a seere jëf jooju nga xam ne ne pay gi moom bon borom rek ko am waaye nag koo ko fekkee war nga koo seere loolu rek sama jéego yi tey li tax nag man mënumaa ñàkk a jóg ñëw seet si la tey jii wax li ma lay wax ma yàgg ngaa def lu baax waaye da ko koo defee noo xam ne def ko foo xam ne mënatuma ko muñ ndax da wut ab fondation fondation bi barki rek la la jiitu fondation bi it waxtu wu ne daara yi ñooy sa itte gone yi ñooy sa itte néew doole yi ñooy sa itte loo am ci ñoom nga ko yemale waaye nag barki dem bi nga ne wut fondation xëy na officiellement danañ am bis bu ñu ne lii lañ joxee di ko wone loolu lañ mën a wone loolu lañ mën a xam waaye lu ko jiitu yàlla rek ko xam waaye yàlla yàlla na yàlla nangu lépp nga jëf ci jëf joo xam ne nag ci wàllu social ak ndimbal man damay jàpp ne mën nga ko defal waaye képp koo xam ne bëgg nga lu baax it day defe day jàpp ne jëf ji soxna Bali moom la ko defal muy loo xam ne nag euh, mësaguma ko dégg sama nopp bi ku jëf-jëf ju mel nii defe ko fii nga ko defe def ko ci ñi nga ko def suñ daara yi moom ak dongoy daara yi jàpp naa lu ci waaye def man ngay dimbale ma gis nga taxaw ci taxaw bu rafet boo xam ne nag ndimbali àgg fu ne yemali ko Tuubaa rek fu ne fu ne nit ñaa ngi may téléphoné di sant lool nag du ngor ci man may toogati te ñëw ba seere la cant gi wala téléphone sant la doyut seere la ko ñi ma dendal doyut dama koy seere lu àddina sépp nga xam ne jëf ju mat a ngi ju rafet a ngi joo xam ne yàlla rek tax ak liggéeyal Sëñ Tuubaa kon nag faaw ma di ko seere la jëf ji mat naa rafet na yàlla mi tax nga di ko def ak liggéey liggéeyale ko sëñ Tuubaa ci jaam ñi yàlla ko yàlla nangu ci dara ji sëñ Tuubaa loolu rek moo doon samay tànk du leneen gërëm la ci sama jëmm sax waruma ndax dañ jut ñaar kenn lañ waaye nag li nga ko def ko ci jaami yàlla yi nag te sëñ Tuubaa rek tax li nga wëlbatiku def ko ci daara yi nag te sëñ Tuubaa rek tax loolu moom damay jóg taxaw wuutu ci sëñ daara yëpp wuutu ci dongay daara yëpp sant la la ci seenu tur donga yi jot nañ ci xéwal gi sëñ daara yi nañ ci xéwal gi def nga ko ci weeru tedd u mag weeru sëñ Tuubaa ndax li li mu gënoon a fonk ci la ko am ci la njëkk gis yonent bi ci la am yurdu Maaxoos ci la yoonu murid juddu démb dama wax ak Mustapha soxna si li mu def seetlu ko sax bis bi mu taamu ne nañ ci séddale yëf yi tàmbalee kon yëgut sax ne bis bi lii ci la xew dafa tase rek bis bi ci la sëñ Tuubaa njëkk gis yonent bi fii ci jàkkee sëñ Mbàkke Madina muy ñaar ko fan ak juróom-ñaar ci koor mu takkal ko garaat xutbaani bis bii ci la gis yonent bi sallallahu alayhi ca gànnaar mu jox ko Aliou ma Maxuus bis bii ci la fee ci la ko yonent bi feeñu jox ko ndigal ne ko wooteel yoonu murit bis bii ci la Sëñ Tuubaa taalife wa kaana haqqan kon nag addiye Sëñ Tuubaa jii nga ko jox jox ko ko jaamu yàlla yi ci bis bii nga ko def Sëñ Tuubaa nangu na ko loolu rek laa doon seeral maa ngi lay sant di la gërëm jërëjëf